Mbàkke loolu moo na fi indi ñëw ngir ànd ak yow jàppale la nag jàppale goo xam ni jàppale dëgg-dëgg jàppale la ndax xam na kuy wut département bi niñ koy jàppalee xam nañ du waxi kese lañ koy jàppale donte bokk na ci du dajale ay kese lañ koy jàppalee donte bokk na ci waaye la gën a wér te farataw mooy bisu élection yi nag bu jotee ñu jël suñuy carte dem wateel la dem wateel la ci am nañ yaakaar ju wér ni bu keroogee danga gañe ndax li ñuy doy doy suñ président ba mu ñëw ba ñëw ci yow am na ñeneen ñoo xam ni mel na ni ñun doy nga leen ba wut si nañ la kon loolu ñun bu ñu président yabalee ci yow suñ xol sedd na guy yàlla dogal nag tamit ngay sëtub sëriñ Touba kon ñëw nañ ci turu beneen baat bu bees ñëw nañ en tant que taalibe Serigne Touba ñëw fekk ci sëtu Serigne Touba ñaar yooyu moo indi ñu am fulla ak fayda ak ngor ju toll ni nag ànd ko ak yow ba mat sëkk ñun dañoo ñëw ci xaw a yeex tuuti ndax ku ne xam na ni élection yi léegi mu ñëw te mën na am ngeen am benn bis bu ngeen ciy noppalu kon li ciy des juróomi fan wala ñeenti fan moo ciy des léegi nag ginnaaw loolu moo ci des ñu bëgg nag ñun bonoon beneen baat bu bees ñu taxaw ci ñeenti fan yooyu jël ci suñ yitte yépp jamale ko ci parti bi pour nga gañe suba yi ak ngoon yi nag dañuy xëy di dem bu ngoonee ñu gont di dem ngir lan ngir nga gañe ñeenti fan yi ci des mobilisé bu baax ndax ku ne xam na ni jigéen ñi ñun ñoo gën a takku sax ñoo nu gën a takku ndax ba ne beneen baat bees nee na ngeen ñëw ñu daje ak sëñ seex ñëpp a sawar ci lool ñépp ñoo sawar ci ñëw daje ak yow ngir ñeenti fan yooyu ci des ñu fas yéene nag duñ ci yendal duñ ci fanaanal wane suñ bopp bu baax wane ki ñu àndal bu baax nuñ ko mën a wanee ñu wanee ko ni buñ demee ba ca bisu élection yi itam ñu taxaw ci bu baax ba doon loo xam ni boo ko gisut sax ñeneen ñi daje ci mbedd yi daan gis ni ñeen ñi daje ci mbedd yi dañ gis ni waa beneen baat bu bees ñoo nekk nii waa beneen baas baat bu bees sëñ Cheikh la ñu àndal ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp di jiite si nuyoo bi sëriñ Cheikh Bara Doli Mbacke ñu ngi ko nuyu baax di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam di siyaare sëriñ Modou Xuma m 4 beneen baat bu bees beneen gisin bu bees beneen doxalin bu bees ba Assemblée nationale te loolu la ñu ñaan yàlla suñu borom man nag soxna Ndeye faat Dieng maa ngi dëkk Touba daaru Minam jiite plus de 2000 personnes yoo xam ne man maay présidente jàmbaar gox fii si Touba ku ma xamul tamit dégg nga ma ñu fas yéene jël suñu lépp jox ko Serigne Modou Khouma dollar ànd ak moom nag te séentuwuñ ci lenn li ciy séentu nag mooy li nga xamante ne si boole nañ ko yow Mbàkke li ci des dañ koy bàyyee yow. di leen yóbbante ab nuyoo ci suñu xarit suñu mbokk président Modou Khouma dollar nga xam ne suma xarit la yàgg nañ lool ndax depuis ma nekk ndaw laa ko xamoon yàgg nañu muy jàmbaari seex Mouhamadul Moustapha Fallilou liggéeyal seex Mouhamadul Moustapha Fallilou ba mu gërëm ko ne ko ca kaw ca kanam te jàpp naa ne loola it ku ko xam-xam ne la ko sëñ bi waxoon loola ku xool ci jëmmam gis ko ba mu ko yeewee ñaanal ko doon jàmbaar joo xam ne Sëriñ Tuubaa rek ko ñor Cheikh Mamadou Moussa Fall rek moo ko ñor yàlla dogal bi nga xamante ne élection yi jub si na yàlla dogal bi nga xamee ñoom seen liste mujjul jàll ci la ñu jokkoo maak moom waxtaan bi nu waxtaanee itam mu ne ma dinaa waxtaan ak samay nit ba fan yee ci ginnaaw mu woo ma confirmé ne ma candidat yëpp déglu naa leen xool seen programme waaye sa programme moo dëppoo ak sama programme yow laay jàppale kon loolu tey su ngeen ñëwee sama xol da ciy sedd ndax toujours li may wax rek montre yu baax yi moom ñooy bokk heure waaw montre yu baax yi ñooy bokk heure loolu rek moo tax ma xam ne nun ñaar ñoo war a ànd ca it ñoo ànd kon alhamdulilahi rabbil alamin kon na ngeen ma ko santal gërëmal ma ko maa ngi leen di nuyu itam di leen xamal ne sunu coalition bi mooy coalition wàllu Sénégal coalition boobu nag ay parti yu bari ñoo ci nekk waaye biñ ci gën a ràññee rek mooy parti démocratique sénégalais moo waral bi nga xamante ne ñi ngi defar list bi ñu def ko ci listu PDS mooy liste bu yàgg bi ngeen daan voté rek son bi am gub yi rek boobu la li waral ñu def ko ci mooy <clears throat> président Abdoulaye wàdd ni ñuy jàppale li ñu boolee ak moom ndax li ñu boole ak moom mooy ku tedd ka Cheikh Mouhamadoul Moussa Fallilou ndax moo jëloon sëñ baara Dolly boole ko ak président Abdoulaye Wade ne ko na la jàppale su la jàppalee danga am ndam yàlla dogal du 2012 2018 président Abdoulaye Wade tabbu sëñ Bara def ko député yàlla dogal 2000 ñu gañee nekk gagné réew mi président Abdoulaye Wade nekk président ñoom ñaar ñu ànd ànd bu rafet ba bi nga xamante ne 2012 ñëw na. sëñ Baara def retraite politique am bi mu defee retraite politique am man ci laa commencé nag dugg ci biir politique bi dëgg-dëgg ndax bu njëkk daanaa jàpp rek waaye tukki laa daan def lu bari boo masaana dem Italie it Olbia bu masaana dem ci sëñ moo Modou laay dem ndax moom suma xarit la foofu laay nekk ci moom lu bari ñuy waxtaan mu may conseillé euh, ba yàlla dogal ni ma toogee commencé def politique yàlla dogal 2012 bokkoon naa ci juróomi nit yin investir ci département Mbacké ndax Fallou Mbacké Moussa Sakho ak man ak ay Gaye ak ku ñu aji Seck yàlla dogal 2012 ñu perte élection yi gagné waa APR gañe yàlla dogal 2014 ñëw mooy comme élection yii te ñu war a amal euh, liste bi fi amoon muy listu PDS fàllu Mbacké moo jiite woon majoritaire bi man ma jiite proportionnel bi. bi ñu demee élection gagné département bi bi ñu gañee département bi teguñ ci ay weer fàllu Mbacké daal di bàyyi. wor ñu dem fekki Macky Sall ndax dañ koo jàppale mu defar beneen parti wane ne day concurrence ak PDS. Moussa Sakho itam mi nga xam ne ndax bi ñu falee conseil département mooy lii ñuy xëccu tey Fallou Mbacké moo nekkoon président bi man maa nekk premier vice président ministre Moussa Sakho nekk deuxième vice président. bi élection jàllee ba ñu fallu ba taxawal bureau bi rek lañ ca teg mooy ñoom ñaar ñëpp dañoo daal di wor dem seen yoon. Aïda Gaye mi ñu defoon secrétaire élu aussi dem yoonam Alla Niang mi ñu defoon beneen secrétaire élu bi dem seen yoon bi ñu ñëwee 2017 ñooñu ñëpp dem président Abdoulaye Wade tànn ma ne ma dama bëgg nga jiite listu député yi muy 2017 aussi tamit bi ma ko jiitee listu 2017 bi aussi gagné naa département bi gagné bu rafet doonte waa APR doonte waa APR saboté nañ élection yi ndax la ca xew yéen ñëpp xam ngeen ko bisu élection yi dama génn réunion laa dem préfecture man ak gouverneur ak préfet ak maire Abdoulaye Ka ak euh, commissaire be commissaire de police bi ak commandant gendarmerie bi ñun ñoo fa newoon di waxtaan xool nan la ñuy def pour sauver élection yi ndax comme bureau de vote yu bari dañoo daanu woon ñu ne léegi vote bi nañu ko yóbbu ba minuit su fekkee nun candidats yi d'accord nañ ñoom gouverneur mën na décréter lool tout de ñu mën a continuer vote ba minuit nun ñu d'accord loolu ci biir foofu laa génnee rek bi ma génnee police yu bari ay camion ñëw encercler ma jël ma yóbbu ma police ba bi ñu demee nangu sama téléphone yi tëj ma ci bureau euh, com euh, commissaire bi dama yow élection yi duutee ci bokk doo voté doo voté lu nit man voté wu ma voté lu ma nit ñaareel ba it ñu saboté bureau de vote yi ndax tey jii bu ngeen xoolee Touba élection législative gagné naa ko waaye bi may gagné benn son ñoo voté boo xoolee li commencé Daaru nam maanaam jëm Madiana jëm jànnatu jëm daaru xuddoos jëm Touba mosquée son yooyu yëpp voté wuñ dañ leen a privé ne yéen du ngeen voté yàq seen i bureau de vote son yooyu bokkuñu ci ñu voté 2017 ndax ñooñu bu ñu bokkoon kon gañe ba day rëy bi ma leen di gañe ndax fexe nañ ba xaaju Touba voté wuñ ca téew rawee naa leen 13000 voix kooku kenn mënu koo sàcc waaw kon tey yéen su ngeen ñëwee jàpp naa ne duma yi ma leen daan duma duma yi tey day gën a rëy ndax gëm naa ne ndax gëm naa ne force ngeen boo xamante ne ñëw ngeen tey dolleeku ca la ñu amoon kon tey sama yaakaar gën na dolleeku ba jàpp naa ne balaa balaa rek bu soobee yàlla urne yi dana fees urne yi dana fees gaa yi duñ doy ndax dama xam ki ngeen àndal da ngeen a ànd ak nit ku am conviction da ngeen a ànd ak nit ku am gëm-gëm nit koo xam ne ñu bari xamuñ ko Moodu ay xalaatam xam-xamam Sénégal bu ñu ko utilisé woon mën naa avancer Sénégal ñu bari nag xamuñ ko ndax man wax naa ko nee naa ko sa compte beaucoup sur toi sama yaakaar yu bari wéer naa ko ci yow ëllëg suñu gañee parce que li wér ca wóor mën nga ma indil ay partenaires yoo xam ne ay partenaires yoo xam ne waxuma la defar Touba ak département Mbacké waaye mën nañoo defar Sénégal loolu moom leer na ma ndax bu fekkee ci wàllu santé la du xamante naag personnalité yi nekk bitim réew yëpp rawatina Italie ci wàllu santé loo ci soxla mën na ko indi ci wàllu njàngale loo ci soxla mën na ko indi wàllu transport tey bii nga xam ne am nañ ci jafe-jafe ci xale yi pour ñu jàngi ay bus mën na koo lijjanti man na ko indi ci wàllu partenariat su fekkente ne wàllu ay financement la mën na lijjanti ay partenaires yoo xam ne bu ñëwee danañ liggéeyal ak conseil départemental bi ba jigéen ñi mën a am ay financement loolu moom leer na ma ne man na lenn rek moo ko jafe woon mooy fan la koy jaarale <clears throat> loolu rek problème boobu rek la am ndax tey jii nii mën nga lijjanti say partenaire waaye bu ñëwee il faut mu jaar ci mairie bi wala mu jaar ci conseil départemental bi kon alhamdulilahi rabil alamina bi yàlla boole ñu ak yéen parce que sa compte beaucoup compté naa lool ci yéen ci vote bi fii waaye aussi compté naa ëllëg ci li nga xamante ne mooy liggéey bi ñu war a def président Modou Xuma war ma cee jàppale sunu xol sedd na ñoo ngi leen di sant di leen gërëm laneen la ca des mooy fan yi ci ginnaaw coow lu bari am na assemblée nationale yàlla dogal man la yàlla may féexu ma fekk bureau ba ca assemblée nationale proposition de loi la boo xamante ne ànd sàmm jikko yi ñoo ko bindoon bi ñu ko bindee dem seeti kilifa diine yi sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa dafa signé ba pare bind ci loxol boppam wane ne ànd na ci ñu dem seeti sëriñ Mbay Si Mansour mu signé bind wane ne ànd na ci xalifa yëpp noonu lañ toppee benn par benn ba ci ki nga xam ne moo jiite église bi sax dem nañ ca mu bind siñe ñu def ko proposition de wane ne dañu bëgg li nga xam ne mooy borom ñaari tur yi képp ku ko fi defati maanaam bu ñu la gisee nañu la daan comme nu ñuy daane ku rey nit ku rey nit ni nu koy daane tëj bi ñu ko war a tëj maanaam ku defati loolu loolu lañ lay tëjee. ñu def ko proposition de loi Mamadou Lamine Diallo porté ko bi ñu ko indee assemblée nationale ma porté ko ci bureau bi keroog bi ñu toogee député yu bari dañoo daw am na ñoo xam ne ci ay këru diine lañ jóge ci bureau bi lañ bokk mais dañoo dem kenn gisu leen nangu ñoo ñëw jël position ànd ci diine ji wala ñu ànd ak euh, ñiy défendre góor jigéen man di la Serigne tuubaat may taw féexu ma fekkee ko bi ma ko fekkee ñu toog ñu ne proposition de loi bi du jàll góor jigéen yi nañ leen bàyyi ci seen liberté bu kenn indi loo xamante ne da leen di daan comme ni ñu daanee ku rey nit menn man maa ci d'accord député Macky Sall yi taxaw ne ñoom àndul ci nañ bàyyi góor jigéen kon man dama jàpp ne képp ku voteel maanaam APR mooy fas wi la may jàpp rek mooy war nga sëriñ Touba ndax Serigne tubaa bu dikkaatoon jamono maanaam du ànd ak ñoom du leen jàppale ndax seeni pexe mooy dooleel góor jigéen ndax dooleel góor jigéen du góor loolu moom képp ku koy jàppale rek nan la leer ne bu yomal xiyaamee yaa yaa ka koy def ak ka koy ka leen di dooleel bu yomal xiyaam bugalum suñ borom rek ci fa nga jëm ñëpp xam nañ kon yàlla nañ ci yàlla musal kon na ngeen xam ne képp ku ñu bëgg a jàppale bi teembu soon bi la bi am gubu mboq bi kon maa ngi leen si sant di leen gërëm di sant ñi fi ñi fi teew ñëpp kenn ku ne maa ngi lay sant di la gërëm